asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki juli yi bokki taalibe yi ginnaaw bu mu amaatee ndigal moom Serigne Cheikh moom Serigne Salihu yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal lislaam ci tool yi Touba Darou Salaam Maodo Mouride. ba liggéey ba noppee demaat na ci xalif général de Mouride Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha yëgal ko ko laajaat ci ndigal ba mu joxaat ko ko mu yëkkatiwaat na kàddug cant ak goo ngërëm di ko jëmee ci mbooleem koo xam ne mas ngaa jóg ngir dem ca tool yooyee di ñaan sun borom subhanahu wa taala yal na leen yàlla fay lu kawe seen jort di leen tàllalaat loxo nag di ko woote mu war a nekk juma le 13 octobre incha allahu rabbi sëriñ bi nee na mi ngi ko yëgal sëriñ Abdou Lahad Mbacké jëwriñi liggéey ba moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdoul Khadir sëriñ Moustapha Diakhaté moom sëriñ Modou Khayri sëriñ Djili Lo sëriñ Khadim tin Mbacké Bawal sëriñ Fallou Tine sanc Daaru Salaam sëriñ Cheikh Modou Fall Baye sëriñ Jili Ñang Touba Afia sëriñ Ibrahima Kama Boqahatul Mubarak sëriñ Asiru Wadd Kaolack sëriñ Ibrahima Darame Louga sëriñ Moustapha Mbacke Daaru Taneful sëriñ Boubacar Ñing Touba Bagdad sëriñ Lamine Diallo Parcelles ak waa Dakar gépp sëriñ Abdoulahi Fall ak sëriñ Ousseynou Sakho ak mboolem waa Thiès sëriñ Magat Fay Malika sëriñ Daouda Mbodj ak mbooleem njaboot ga sëriñ Modou Lo campement Ngeexoox sëriñ Moussa Ndiaye ak sëriñ Salihu Diop ci turu waa Mbour gépp sëriñ Aji Jama Wilane Kër gépp sëriñ Lamine Wilane Afiya Murit Alhaji Wilane ci turu Ngatu gépp sëriñ Cissé Gaye ak waa Daayira Aneen gépp sëriñ Aliou Gaye Aneen sëriñ Jamme Aan Mbojeen Daayira Mbojeen ci turu sëriñ Daouda ak mboolem waa ba ñëpp sëriñ Sam Sarr kër Cheikh Lo sëriñ Mourtala si Mbabane xalifa sëriñ Malick Bassine si sëriñ Mor Xarisi Gassane xalifa sëriñ Mor Xarisi sëriñ Mokhtar Lo Touba Ali Mbenda sëriñ Cheikh Lay Koungheul représentant xalif général des Mourides sëriñ Cheikh Seck Yidda Mouride sëriñ Fallou Diouf Jatti Daaru Khoudoos Mbora sëriñ Mor Gueye Daaru Khoudoos sëriñ Moustapha Diakhaté Mbora sëriñ bi nee na ba tey mi ngi ko yëgal alhaaji Mor sek meeru Yidda Murit sëriñ Modou Mbakke moom sëriñ Moustapha Bassirou Kaffrine Abdoulahi Wilane meeru Kaffrine sëriñ Modou Mbakke Delbi sëriñ Abdoulahi Sow Kaffrine sëriñ Abdou Ndaw doomi Baye sekh Ndaw Maodo alhaaji alhaaji Souleymane Ndaw ca xaj alhaaji Ibou Seck ak waa Taïf Seck sëriñ Singoji Sow ak waa sek Seck sëriñ Cheikh Sarr Touba sëriñ mbayloo ca xaj ak njabootuk sëriñ Ali Mbend sëriñ Baara Si ca Sil sëriñ Amath Seck Koupantoum représentant xalifa général des mourides Alhaji Seck Ndimbulaan Koungheul Alhaji Ibrahima Bousso Ndawa Alhaji Omar Lo Mbeng Koura sëriñ Abdoulahat Mbacké moom sëriñ Abdourahmane Jiwaalo transporteur yi nag nee na mi ngi leen di soññi Alhaji Mbay Touré Touba Alhaji Abdoulahat Ndiaye sëriñ Xabaan an campement Ngexoox sëriñ Baara Seck Kaolack sëriñ Ousseynou Diop Xayra sëriñ Babacar Diop kër Madou Yacine Baba Diop kër Madou Yacine Madou Diop kër Madou Yacine sëriñ Abdoulahi Niang sëriñ bi nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn képp koo xam ne daal daa nga dem ci liggéey bi ñu tudd sa tur ak ko ñàkk koo tudd sëriñ baa ngi lay tàllal loxo di sàkku sak teew <clears throat> fële ca Touba Darou Salaam ajjuma le 13 octobre sëriñ bi nag nee na bu ngeen demee ba ca liggéey ba ñaari jëwriñ lañ fa tànn ñu topp ci ginnaaw sëriñ Abdou Lahad moom sëñ Modou Abdou Khadir benn bi mooy sëriñ Moustapha Diakhaté moo nekk Darou Tanzil képp kuy dem boo ñëwee guddi man ngaa jokkoo ak moom ci 77 641 13 73 wala 77 922 40 81.

ñii ñëpp daal koo ci woo soo agsee incha allahu rabbi danañ la xamal fa liggéey ba nekk kon li des ci kàddu yi dañ koy bàyyi sëriñ Moustapha Diakhaté mu leeral leen ñëwin wi ak bu ngeen ñëwee liggéeyin wa moom mi nga xam ne moo nekk daaru tanzil su nappee ñu jox sëriñ Cheikh Fall Baye faal moom it mu leeral leen daaru salaam ak ni nga xam ne moom la ñuy liggéeyee foofa lépp su ko su ko defee ñu tënk ko kenn ku ci nekk bañ cee jaaxle waaye ñu ngi fàttali ne mbooleem kuy ñëw mbooy transporteur yi nañuy def ndànk ci yoon wi tey sëf lu yem te doxin wi bu dee guddi nañu xam doxin wi ndax yoonu nawet la te yoon boo fa gëjee doo xam la fa nekk ñi ngi sàkku nag ci mbooleem kuy tàkk der na ci yoon wi nga yombalal leen xam ne dañuy liggéey li Serigne Touba rek waaye ñun ñoo bokk waar wi kon ñu bàyyee kàddu gi ak Serigne Moustapha Diakhaté bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi jotle ay kàddu ci ndigalul sunu jëwrin sunu ñaari jëwrin yi sëriñ sëriñ Abdoul Ahad moom Cheikh Modou sëriñ Abdou Khadir sëriñ Abdoul Khadim moom sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Salihu di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te wér ba yeggalee naal yi ak it ak ak mébét yeeg yëpp dañu ko ak moom. di woote ci ndigalul sëriñ moo sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir di fàttali tool yi nga xamante ni mooy tool yi tuubaa daaru Salaam ñu féete fa Touba Darou Tansil di fàttali mbooleem. di woo mbooleem jullit yëpp mbooleem talib yëpp mbooleem région yëpp bàyyiwuñ kenn di toolub lislaam boo xamante ni jullit yëpp lañ ci woo di ñaan yàlla ñu dem ca ci jàmm liggéeyee ko ne ko sëriñ bi bëggee te ñibbisiwaat ci jàmm te dana cee ngërëm ak ndimbal di fàttali mbooleem kuy ñëw jumtukaay yi nga xamante ni mooy jumtukaay yi ñu war a liggéeyee mooy di ca jiital jëwriñ yi nga xamante ni ñoom lañuy àndal ñu fàggu ay ngóobaan fàggu ay takkoon yi nga xam moom la ñu war a takki dugub ji te mm, euh, fàttali it njaboot gi ñuy àndal ci mbooleem yoon yi ñuy jaar ak oto wata yi ñuy dugg ci nu ñu leen ñu nosu ba nga xamante nii dina ñëw ci jàmm dellu ci jàmm di bàyyi xel ñi ñuy dajeel ci yoon yi ak li ñuy dajeel di ñaan sa borom musal ñu ci mbooleem luy gàllankoore di wax ne nag maa ngi sàkku di di di di wax ñu ñun ñëpp ñu maase fas yéene jëfe ndigal la na ko sëriñ ba bëggee te dëppoo ci ak na ko donga yi nga xamante ni ñoom lañ fay fekk bëggee muy dagg dugub ji ci daggin wu sell dajale ko ci dajalin wu sell takk ko ci takkin wu sell it jaagal leen ko ci jaageen wu sell ànd ak nañu ko bëgge bu ko defee dinañ ca dajee ngërëm ak ndimbal kon noo ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn kon ma jox kàddu gi sëriñ Cheikh Fall Baye Fall moom mi nga xam moo féete Touba Darou Salaam moom it mu jot ci ay kàddu. binaa bi ñu sante sunu borom julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant Seexul Xaddiim di ñaanal sëriñ taxa mu yàgg fi lool te wér. waaye naka noonu lañ koy ñaanale Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saalihu na fi yàgg na wér. di amaan mbégte ak ak cant ci ndigal li nga xam ne miin nañ ko muy tubaa Darou Salaam defe naa doonatul lu ñuy jàngal doonatul yoon wu ñuy wan. Eh, kon nag day mel ne tawféex la ndam la ginnaaw nuyoo sang yu tedd yi ñu ngi sant ak siyaaru sunu sang bu tedd bii nga xam ne mooy Cheikh Abdoul moom sëñ Modou moom sëñ Abdou Khadir moom Cheikhul Khadim Mbacke ñoo ngi lay sant bu baax ci jiital gii ko Cheikh Ahmadou Mbacke Salihu jiital ci tooli tubaa Darou Salaam yi. waaye di ci teg eh, rakkam ju baax ju tedd ji di Cheikh Ahmadul Khadim moom Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Salihu di leen sant bu baax seenu teewaay waaye di ci sant teg sunu jëwriñ ji mu Moustapha Jaxate ak eh, eh, sëñ Jili Mbacke mii nga xam ne ñoom ñoo fi taxaw taxawaayu sunu jëwriñ ci mboolem liggéey bi ak mboolem jëwriñ yi fi daje yëpp rek. ñoo ngi amaan mbégte lool ci ndigal li nga xam ne jotaan nañ ko ndax dañoo munta am lu gën a kawe ndigal sama cant nag ak sama soññe mi ngi tàbbi ci kër gi nga xam ne mooy kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridina di sant sunu kilifa ga fa nekk di sëñ di moom sëñ Modou Mbend di xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak mboolem ña ñu bokkal kër googa. kon nag eh, fi ñu ñëw rek ci wàllu Touba Darou Salaam gi nga xam ne moom la ñu féetale ci ndigalal sëriñ bi eh, Touba Darou Salaam liggéey la woo xam ne demin wi léegi macha allah bu njëkk demin wi daana xaw a jafe waaye léegi sama borom taw féexal na ko ci barkeb sëriñ bi yoon wi ritax na lool ba mënees na faa dem demin woo xam ne ci teeg bakkan akuk dal lay doon amatul benn gàllankoor amatul benn jafe-jafe ci ndimbalal sëriñ bi euh, buñ fa àggee itam la fa gënoon a jafe muy am ndox sama borom yombalal nu ko ba fi ne nii ndox maa moo gën a neex euh, ndox yi ko gën a neex ci réew mi man xaw ko Eh, fi may tàbbi ci soññee mooy ñu teel koo waajal ci ni ko Cheikh Moustapha Jaxate waxee ci wàllu ngóobaan wàllu yu ak yu mën a def ndox wàllu daluwaay yu baax ak mboolem xeetu jumtukaay yoo xam ne rek ku jëm ci tool moom nga yóbbaale loolu daal ñoo ngi koy fàttali mboolem ñi ñu bokkal yoon wi Eh, waxtu woo xam ne képp ku ñëw nag numéro yi sëñ Fallou Galas eh, joxe képp ku ci woote dinañ la gindi teg la ca fa fa nga war a dal te dana am ak taxawaay bu mat sëkk ak tatagal gu mat sëkk goo xam ne eh, bu soobee sëriñ bi na ko sëriñ bi bëggee fas nañ yéene defee ko noona mooy liggéey liggéey ba liggéey nu sell for for dugub ja ba mu sell ñu takku takkin wu sell jàkko ni ko Cheikh Moussa Diakhaté waxee ba dégg fi sëriñ bi ñu door delluwaat loolu daal mooy woote gii nga xam ne sëriñ bi woote na ko muy woote goo xam ne Eh, bëgg faj suñu aajo képp a tax mu nu ci woo waaye ñu ko liggéey ba mu toll fële day mën nañ koo àggale kon sëriñ bi xam nañ ni dara amul lu gën a kawe liggéeyal sëriñ Touba xam na ni dara mënul faj faj aaju itam lu dul liggéeyal sëriñ Touba moo tax sëriñ bi woonu ci liggéeyub sëriñ Touba bii nga xam ne mooy Touba Darou Salaam ñi ngi ci woo nag suñu mbokk uh, jëwrin yi nga xam ne bokk na ci jëwrin yu mag yi muy seex te seex Sidaat Aydara Cheikh Sidaat Aydara ma nekk Touba Tëngéej moom it ñoo ko koy fàttali di ko ci soññu ràññee nañ fa bu baax ab taxawaay ak pëseefam ak mboolem jëriñ yi nga xam ne tudd nañ leen ba noppi kon daal noo ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi mu yàgg noo liggéeyloo te ñu yàgg jot ndigal te yàgg koo jëfee